xadiimu samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may la ndimbal yàlla nga yeggale naalu gaay baaxi fi woon yàlla nga yeggale naalu gaay baaxi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdali xalqillaahi sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa asna qadimihi wa man ihtada bihi ila yawmi ddin ayuha almushahiduuna alkiram fi kulli makanin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi foofu waay mën a nekk ci àdduna ci biir réew mi ak biti réew noo ngi leen di ziyaare yéen ñëpp di leen nuyu di leen balu di leen balu di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii te ñaar fukki fan ak ñett ci shawaal muy weeru kor yi di bis bi nga xam ni ci la jàmbaari lislaam ja murit saadix ba ku gëm yàlla ka doomi cheikh ahmad bamba ja di cheikh abdul ahad mbakki jiimil xulafa man bachara salafa sumal xalaf feeñoon àdduna yàlla sun boroom dollee ko sëñ tubaa ay baax baax ak i teraanga ak i xéewal muy bis boo xam ne bii sëriñ tubaa waxoon na ci lu rëy gan gi ci feeñ ci moom it sëñ Tuubaa wax wax wax ci moom wax ju rëy muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ni moom lañ fa séenee waxtaane tey ci bisam bi di ci ndokkeel mboolem njabootam gépp di ko tàmbalee ci kii ci bopp bi tey muy di sëriñ Sidi Mbacké mi nga xam ni tànki baayam rek la aw ci bëgg sëñ Tuubaa gi ak pësteef bi ak dogu gi ak xam gi boppam ak nekk ci li ko war naka noonu ak rakkam yi yëpp li ko tàmbalee ci ka mag ba ci ki ci gën a ndaw ñu di leen ndokkeel ñoom ñëpp di leen siyaar ci ndokkeel taalibeem yépp ak soppeem yëpp ak murid yëpp ak yoon ak lislaam yëpp nu fas yéene waxtaane jëmm joo xam ne ji waxtaane gi xanaa sunu njariñ rek a ci nekk ak sunu sunu dolliku waaye ku ne xam na ne du kenn di fàtte muy Cheikh Abdoul ndax Touba gi nga xam ni yilif na ko ñaar fukki ak benn ginnaaw magam ja Alhaji Falilu lu ba mu fi bàyyi koo ba gën si foo xool gis jëfam foo dégloo itam dégg ay waxam yàlla may ko ay mayu limu yu bari defal ko jagle yu bari defal ko xaas yu bari loolee rek du fas yéene waxtaan ak yéen tey ñaan ci daraje Sëñ Tuubaa ñu defal ko defal na ko muy xidmatan maqbulatan mardiyatan defal na ci li yàlla dële ci ko waxtaane ku baax ku taarixal ku taarixal ku baax ndax euh, man arxawa li yéen fa kaanama axyaahu képp ku taarixal waaju baax mel nga ni ku ko dekkal muy jëmm joo xam ne ji moom Cheikh Abdoul Ahad buñ da waxtaan ci moom dina baax rek ñu fàttaliku ay origine am ay cosaanam ay maamam ak i baayam ndax ku ne xam na ni euh, sëriñ tubaa xaadim rasool bi mu dikkee ci réew mi te ñaan suñu borom njaboot gu baax zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu da caa bay sas wu rëy muy kenn ku nekk ci doomam yi daf laa wutal waajur wu baax woo xam ni ñu baaxal a meññ ñu baaxal a jur wutal la asu bu baax a baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ndeyam tudd soxna Mariyamu loolu itam di xaasa mu nuróole ko sëñ tubaa seen ñaari ndey bokk aw tur ñu soxna Mariama Jaxate dëkk Mewndu di doomi sëñ Madu Asta Jaxate sëñ Madu Jax Madu Asta Jaxate moomu ci jamonoom ku ne xam na ni yàlla defaloon na ko mu sa lekk du mbayum boppam bu dee tukki sax sangal sama yóbbu mbaa wóor wa mu yóbbu ci mbayam lay doon ngir dundel dundelu lew askanu Mbàkkoor woowu yàgg ci ñoom alxuraan ak mbañum rus ak xam seen bopp ak fonk seen bopp fonk sa bopp goo xam ne gii nag du ak rëy waaye fonk sa bopp goo xam ne gii mooy xam li la war xam li nga li nga war a def xam fi nga war a teg sa tànk xam li nga war a bëgg ak li nga war a bañ loolu yàgg na ci Mbakol soxna Marema Jaxate mu soxna Jëng si la yaayam itam di doomi sëñ ma paati Ndumbe Jëng ma paati si la sëñ euh, ñu ñaari askan yoo xam ni diggante ñu sant si la ñu sant Jaxate dëkkoo dëkk digaloo ay tool bokk yenn critère ñoom ñëpp di ay jaamukati yàlla di ay jànkati alxuraan di ñoo xam ne ñi seenu seen mbañ lenn rek la ma doon muy weddi yàlla mbaam muy yàlla loolu rek lañ lañ ma sa doon def muy seen bañ musuñoo ragal ñàkk musuñoo ragal xiif musuñoo ragal wéet waaye ragaloon nañ daal goree di wala mu yàlla loolu la ñaari askan yooyu ak ñi demee ni ñoom mel may faral di wax ni euh, loolu sëñ Tuubaa na ko ci baayam muy sëñ Mbàkke Mor Anta muy doomam yépp a nawloo doomam yëpp a nawloo kenn ku ci ràññu ku ci wet day sa xaas waaye ku ci nekk rek euh, mën ngaa damoo sa waajuru jigéen wala jur ñoom ñëpp a nawloo doomi sëñ Tuubaa itam damay wax ni mën ngaa xam ki ci mag waaye bul jéem a xam ki ci gën waaye boo xamoon ku ci gën waajur rek da nga xam ki ci gën waaye ñoom ñëpp la seen ndey nawloo ku ci dëkkul mbusoo bi rek dëkk nga aafe walla nga dëkk mewndu wala nga dëkk kokki wala nga dëkk ndaam wala nga dëkk ci askan wi toll ñi nga xam ne dañ di ay baya seen yaay yi dañ di ay bayaat itam di ay naar itam ku mel ni Cheikh Abdoulahi ñooñu itam seen ndey ni ñuy rëyee rek ni lañ rëyee ni ñuy toll rek ni lañ toll loolu moo tax ñoom ñëpp ñu nawloo kenn ku ci nekk wet ga nga doon sëñ Tuubaa doon wet goo xam ne gii ku ca wet nga ñëpp xamal la ko nangul la ko Cheikh Abdoul Ahad mbakke nag amoon na ay bokk yu mbokkal sëñ tubaa yoo xam ni yi ñoo bokk ndey ak baay waaye euh, dañoo teel a dem muy ku ñu wax sëñ Abdoul Baaxi ak jigéen jox soxna Aïchatu ñooñu ñoo bokk lépp waaye Cheikh Abdoul Ahad Mbacké amaat na rek mbokkal ndey ak baay mu sëriñ Chouaïbou Mbacké kooka nag diir bu gàtt la ànd ak nag ak yaayam soxna Mareem ak génn àdduna wax nañ ni fukki weer ak juróom képp la nàmp ndeyam euh, soxna Mareema doon jigéen joo xam ne ji yàlla may na ko sarafu shahadati ndax bi mu génnee àdduna sëñ Tuubaa waxoon na bokkam yu baax ya muy sëñ Hamzatu ak euh, yeneen i bokkam xamal leen ni na ngeen sant yàlla ci Aïchatu mi ci Mareema mi mu soxna Mariamu mi dem mu ndey Seex Abdulahat ndax mook soxna Aminta ñoo bokk ay biir ñoo bokk nuñ demee sëñ wax ci moom ay texe yu yaatu digle ci moom it ñëpp gunge ko te ñaanal ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ngi gane jamono njaareem ñaar fukki fan ak ñett ci kori di bis bi tey ah ba mu feeñee rek la sëñtubaa waxoon ci moom wax joo xam ne jii moo ma sa nekk motivation Cheikh Abdoul Ahad ndax bi nga xamante ni bi dugg nañ ca weeru kori wi nga xam ne ci la gane àdduna wax nañ ni dañoo takkal soxna si ab néeg bu yees néegu ràng bu rafet bu rëy euh, dël ko ca te ba mu fa dugg itam ñu jàng ca li mu alxuraan yu bare bare bari sancal fa soxna sa keroog bi sëñ bi feeñee itam sëñ Tuubaa dafa wax ni sama gan gii na ngeen ma ci ñaanal waxoon ko magam ñi ko mag yi ko jige ak gaa yu baax yi nga xam ni tëbb na leen ci ay leer ba lu ñaan yàlla def ko mun leen na ngeen ma ñaanalal sama gan gii ndax damaa am ci moom yaakaar loolee doon lu rëy rëy rëy ndax ku wolof yi dañoo wax ne ku yëy yaxi bukki yéey nga yax yéeykat sëñ tubaab mi ñëpp yaakaar képp kum yaakaar wala mu am ci yow yaakaar ku nekk xam na ni kooka am na sasu rëy te loolu la waxoon ci Cheikh Abdoul sama doom ji na ngeen ma ko ñaanal ndax am naa ci moom yaakaar te ku ne xam na ne yaakaari sëñ tubaa moom yàqin la yaakaari sëñ tubaa yàlla du ko tas mukk ci àdduna talabta rasulillahi lii fawqa matlabi minallaahi rabbi war rajaa lam yu xëya bi sëñ tubaa nee na yàlla du sama yaakaar mukk del wax ne tal rajawtuhu qablu wa xaqaqa raja walie xaade fi kulli cheyin maxraja sëriñ tubaa nee na sama yaakaar musta tas musuma am musuma dugg ci dara te awma ca ndam wali xaari fi kulli shay'in maxraja loo ma sa dugg rek am naa ca réussite loo ma sa dugg rek am naa ca ndam mu wax loolu ci doomam jooju ni am na ci moom yaakaar loolu itam daldi dinay feeñ ci na mu ko terale ndax bisub sunnaam ba mu yegsee nga xam ni bis bii lañ ko war a sàkkalu tur booba ñam yu ñuy togg ci dugub ba xew muy lu mel ni ay sereng mbaa ab laax mbaa ay tay cere waaye moom Cheikh Abdoul Ahad day lépp luñ def ci bisam boobee ci ci ceeb lañ ko def te boobu ceeb tumuranke na lool Sëñ tubaa teral ko teraanga ju yaatu tuddee ko tur woo xam ne wii itam melow turam bi moo ko topp ba nageen si muy Abdoul Ahad ca la ko jiitu xamuñu ci sunu réew yi kenn ku mas tudd noonu muy Abdoul Ahad moo tax daana wax ni man Abdoul Ahad mii duma jaamu duma jaamu ku dul yàlla te duma jaamu ku dul yàlla jaamub yàlla rek laay doon te yàlla rek laay jaamu mu teel a féeteeg yàlla lool ndax féeteeg yàlla gi mooy ndeyam teel naa dem ba noppi baayam du doom joo xam ne ji du baay boo xam ne bii jenn doom dana yaatu ci moom ndax du wuuf doomam du tungoom doomam du jàpp ci loxob doomam di doxantoog moom du baay boo xam ne bii day bëgg doomam di ko kopp koppal loolu moo ko bind wax ko wax ni mahat mahabatil muxtaara sayidana xubbil maxaaniya wal ahlina wal waladaa kon Cheikh Abdoul Ahad moom daal di teel a noppalu féete yàlla mi ñu ko féetaleel melo woowu itam moom la masa làmboo ci ak rawam muy nii ko yàlla bindee tedd gaam ji ak pëstéefam bi ak wayam gi ak dogoom gi ak gi xam gi li ko war loolu la feeñaale loolu la màggaale loolu la làquwaale bi mu fi nekkee ba mata dal jàng itam bàyyi ma ko dalal alxuraan ñaanal leen mook bokkam yu baax ya cheikh Abdou Samad ak cheikh Chouaibou ak cheikh Saalihu ak moom ba moom mii ñoom ñëpp ñuy benn seen lépp di lenn ñu di ay tekki rek di mu kànd ñoom da sëñ Tuubaa dalandoo alxuraan yabal leen itam boole leen ak eh, nijaayam sëriñ Hamzatu sëriñ Hamzatu sëñ tubaa xamal ko ne ko maa ngi lay jox samay doom. waaye di say doom itam ndax ñii ma dee seen baay itam yaay seen nijaay sa baay joxoon ma la ma def ci yow la ma la ma def ci lépp joxuma la ko ngir ak bokk joxuma la sa doom yi ngir ak bokk ngir jur gi nga leen jur dama la ko jox ngir li nga jaar ci samay loxo ma def ci yow li ma war a def ci yow bëgg nga defal ma ko ci sama doom yi joxuma joxuma la ko ak bokk ndax ku ne xam na ne xarqul aadati bi tarkil aadati xar baax ngi tàmbalee ci bàyyi aada kon joxuma la say jarbaat samay doom laa la jox bëgg nga defal ma ci li ma def ci yow muy alxuraan ju rafet ak yar bu rafet ak lislaam ju rafet euh, sëñ Abdul Ahad Mbàkke toxoo kon ci loxoy baayam bu baax boobee tàbbi ci loxoy nijaayam loolu itam donn na ko sëñ Tuubaa nuru ko ndax sëñ Tuubaa bi mu matee dal jàng itam baayam a ko jox nijaayam muy sëñ bu soobee mi bokk ak ndeyam ndey ak bàyyi kookee jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe nijaayam muy maamam mu càmmiñal soxna aswaalo eh, ni ko sëñ Mouhamadou Lamine Diop daga dagan waxe ci irwaaxu nadim eh, mu nekk ci diggante bokkam yooyu loolu it nur na ko sëñ Tuubaa muy jëggaanewul lu baax fenn diggante fii mu juddoo ndeyam yi ak baayam yi rek ay nijaayam fi la jaar ba mel ni mu mel te loolu sëñ Tuubaa wax ni wëndeelu may wër adduna door a mel ni ma wel bi ma yàlla na damay def géej itam ay géej ma jur fi ma feeñe rek fi laa feese loolu sëñ wax wax tawajjuhi li des yi yolil maqaama bila ijaalatin li jihaadi shaami wa siini nekkuma di wëndeelu ci réew yi réew yi fu ma dégg lu baax dem fa dama feeñe ci lu baax ci diggante ñu baax ñoo xam ne ñii lépp lu jaam war a xam ci moroomum jaamam rek fekk naa ko ci li ma wër ak ci ñi ma jur ba mel ni ma bëgg lépp euh, bind na alxuraan ci nekkuk baayam waaye kaamil ba Cheikh Moustapha la ko jox Cheikh Moustapha la ko jox ndax booba fekk na mooy ci mujjug nekkuk sëñ tubaa ci Zahir te booba ñoom ñu ngi fii ci tuubaa di fi jàng sëriñ bi nekk njaareem waaye yàlla àtte na bind na kaamil ci nekkuk sëñ Touba Cheikh Abdoul moomu. yàlla defaloon ko ci bi mu tolloo ci jàng lu jafe waaye loolu bàyyi ma ko taw féexal ndax mel na ni dafa yéex a wax yéex a wax googi topp ko ba mel ni xel mi ci njaal njëlbéen taxu ko woon a neex lool waaye Serigne Touba moo dindi kaala ga daan jiitu ci boppam ndax daana kaala wulu man ñetti kaala waaye kaala ga mu jiital ci boppam moom la sëñ bi dindi defal ko ko mbubb mun na dagg ni yaayam sëñ am surtout daggal ko ci ak naawal ñu defal ko ci mbubum xar sànni mu di ko jiital ci yaramam sëñ Tuubaa am lu mu yàbbee ci biir gémmiñam leel ko ko ci loxoom mu sex ko loolee def na ci moom lo lépp loo xam ne lii lu nit war a xam la bu ko xoolee xam ko te bu ko gisee dootu ko fàtte lu mu mas a xam dootu ko fàtte muy gaaw a mokkal ak dul fàtte lu mu jàng itam da ko wattu lépp lu mu mas a xam rek da koo da koo këru da ko ak xel mu yaatu moo xam ni ak dënn bu yaatu boo xam ne bii ak mën a mokkal loolu yàlla defal ko ci muy xaasam ñu sëñ Tuubaa wax ni allahuma salli ala sayidina wa mulaana muhammadin abdulhamid wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbi wa jaal bi jaahihi xaqli waahiyan za fahmin jadid ñaan googu sëñ Tuubaa ñaan ci muxaddamatul xidma yàlla defaloon na ko sëñ Abdul Ahad Mbàkke muy sa sadrun waayun ba noppi di za fahmin jadidin zu fahmin jadidin dënn bu yaatu te mën a wattu te mën a mokkal te du fàtte loolu feeñ na ci ku gis nii muy def alxuraan bu dee nose aaya yi day mel ni ku day mel ni ku euh, péricourse lépp lu mu soxla ci alxuraan day mel ni aaya jooje day taxaw ci kanamam bi mu jàngee alxuraan ba alxuraanam mel noonu la tax loolu yéwén lool mu jëkku alxuraan peeg ko xeeti xam-xam yi nga xam ni ñooy xam-xam yi yéwénal diine yépp itam mu mokkal ko jàng ko xam yi nga xam ni mooy xaqliyaat yi ak naqliyaat yi yépp it mu xam ko sëñ am satu boole ci di leen xamal ak taalibe di leen xamal sëñ tubaa di leen wan sëñ tubaa lam ci xam te fekke ko te gis ko mu leen ko nettali ak nijaay yu baax yi nga xam ne ñoo ko saytu ba Cheikh Abdou ci biir nekk gi mu nekk ak i magam ak i rakkam mu teel a ràññiku lool ñu teel koo xam lool teel ko bàyyi xel Cheikh Abdou Lahad woon a ñàkk mel nii mu mel ndax bi mu tolloo ci war fa si bant rek ci zaahir bàyyi tax bu mas a am magam ju mas a gis nijaayam ju mu doon mbokkam mu mu doon boo ko gisee rek li nga koy jëkk fàttali mooy a ah, sëñ Abdou na nga góor de yow de sa baay bi amoon na ci yow yaakaar na moo nu ko wax loole nag sëñ Abdou Lahad teel koo teel koo dégg di ko dégg denc ko fa gën a sori ci xolam fas yéene sàmm yaari àq ci sëñ Tuubaa muy njureel gi mu ko jur ak yaakaar jooju mu amoon ci moom loolu defoon ci moom aw melokaan woo xam ni Moustapha musta kaf musta léggan bariw amul mbóosóor du lekk ba regg du nelaw ba màndi du yàgg ci jataay doon jëmm joo xam ji yaakaar yaakaari sëñ tubaab jooju mu amoon ci moom naka jekk jëmm la mas sa def rek di taxaw ci kanam fu mu toll rek loolee lay gis loolee lay xalaat nu mu war a mën a fayee àq ju toll noonu ak nu mu mën a remplir mission bu tol nii que ñëpp yaakaar ku am ci yow yaakaar noo war a mel loolu moo tax mu sàmm digganteem ak boroomam ba doon jaam bu wér bëgg yàlla lool bëgg alxuraan lool fonk diine lool nangoo jaamu yàlla lool bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fonk sunnaam bañ biddaa bañ mboosóor bañ lu bon bëgg ab jullit bëgg ay bokkam bëgg lislaam xam yu baax yépp la ca gën mu fas yéene ràngoo yooyu loolu moo tax bi mu fi nekkee ak i magam ak i rakkam lu toll ni ñi mu mag Euh, mag ko ci yoonu sëñ bi itam ndax li ko tàmbalee ci sëriñ Mouhamadou Moustapha ci góor ñi ak cheikh Mouhamadul Fadal ak cheikh Mouhamadul Lamine cheikh Mouhamadul Bachir cheikh Abdoulahi cheikh Ibrahim ñooñu ñoo di ay magam waaye li ko tàmbalee ci euh, cheikh Abdou Samad cheikh Chouaïbou cheikh Sa cheikh Salihu cheikh cheikh Abdoul Khadir cheikh Abdou Samad cheikh Salihu cheikh cheikh Mouhamadul Moutada ak ña ñooñu ñëpp mu seen mag nga xam ne ci digg bi la nekkoon ñu bari mag ko ci mu mag ci ñu bari waaye ñi mag itam li ci ëpp dafa maaseeg ñoom ñi ay weer la magaateek ñoom ñi am at wala yu mel noonu waaye ñëpp a ko bàyyi woon xel nangoo naa ci ko ma ay waxam doy mu ni sëriñ Abdoul Ahad Mbacké de meloom wi mu mel ay bokkam teel nañ koo xam ci moom ndax bi nga xamante ni bii toll na ci jeqee war a toll ci fukki at ak juróom-ñett jëm kaw tuuti sëriñ Modou Moustapha Mbacké mi nga xam ne boobu mooy taaw Bàmba ji mag ñëpp yilif ñëpp mel na mu mel ñëpp doyloo ko ci lépp daana ko bàyyi xel lépp loo xam ne lii lu mu daan soxla xalaat la walla opinion daana ci laaj sëñ Abdou lu mu lu mu lu mu ci xalaat ndax yàlla daf ko mas a xamal xaqibatul umur Cheikh Abdou Lahad Mbacké lépp loo ko mas a wax bu nee tekk wax la loola fa muy mujj yàlla xamaloon na ko lu mel noonu ay waxam itam megam yépp di ko bàyyi xel ba sëñ Modou Moustapha daana ko daana soxlaa xam lan mooy opinion ci nangam bu ko bëggee bàyyee boppam itam sëñ Abdoulaye daana ko sëñ Modou Moussa daana ko digal Abdou wax ma rek li nga ci xalaat wax ma ko bu ko defee loola dana tax ba honnêtement daana ko wax lu mu doon la mu ci xalaat naka noonu bokkam yépp loolu Cheikh Saliou Mbacke moo ko wax ci sëñ Abdoulaye alors moom de teel nañoo bàyyi xel xalaatam ci mépp mbir mu mën a doon kenn ku ne doyloo ga woon ci lépp lu mu la xalaatal te booba de rawee na lool loolu yàlla xaasama woon lu mu mës a doon rek am na ci xaqibatul umur xam na mbir mii fa muy mujj monsieur su ko defee rek benn mbokk mu sa bëgg dara bi nga xamante ni bii sëriñ bi dem na ama wam sa Chine mu 1927 la nga xam ni euh, euh, yoona ko ko jox ci trois à la trois sihil xëy war a doon ne ci sëriñ te loolee ñu tegoon ko ci loxol nijaayam sëriñ Mbàkke Jaxate nga xam ni walla ma ci li fi sëñ tubaa bàyyi ci luy nuru tarika alali àdduna wala lu mu mën a doon nga xam ne lii xàqama walla ma ci alali sëñ Tuubaa ba mu demee ba yegg ci sa sanata taklif bay majeur ba xam ne léegi responsable na ci alalam dafa tallal loxoom nijaayam ni ko la ma amoon ci sama àqi baay teg ko ci sama loxo bii nijaayam def na mu jël lépp lépp lu ma amee woon ci baayam teg ko ci loxol sëriñ Moodu Musaa Mbàkke magam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 bi nu ko defee sëñ Touba nag dafa am sabab sabab si moo di sëñ Touba ba mu ne ñokk ket dafa daal di wane xalaatam la mu bëgg a def ak fa mu bëgg a jëm la mu njëkk a wax moo di sahitu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi seere naa ne yàlla rek moo moom bindéef yépp seere naa ne yonente bi mooy ku ñu yónni ci dëgg loolu ñu daal di xam kii ne jàpp na ne yàllaay buur jàpp na ne yonente bi mooy ndawam mu daal ci teg ne dalla ni yàllaahu ala muhammad yi waxaada ni muhammad li samadi yàlla na ma yonente bi yonente bi xam na may jëme ma ci yàlla ñu daal di xam ko ne kooku yàlla ak bi rek lay nekk seen diggante boolewu ci leneen am na bis boo xam dee na doom ju mas a am sukk nga fi kanamam def ni ko taalib yëpp defe jaay sa njuréel gi jënd ko ak taalib mu la diggal la taalib yi def nga di ko def di la teral la taalib yi bàyyi nga di ko bàyyi loolu wax na ko ci wàllam moom loolu teel na koo xam teel na koo def fas yéene nag góor góorlu ci lépp luy waa ak cëriñ ba mu jàngee alxuraan mokkal ko dégg ko dégg diine itam diggante euh, naxu diggante tawxiit ak fiq ak tasawuf ak xulumul xawmi muy xulumul asliyati xaqliyaat yi ak naqliyaat yi jàng naxu mokkal ko jàng arut jàng bayaan jàng sarf jàng balaaxa dégg luxa euh, am ilmu nafsi sëñ Mourou Moussa tàggat ko tërbiye ko ba mu man lépp lu góor di ban lépp lu war a xam mu xam ko dafa daal di futtiku nag euh, fas yéene jàkkaarloog jafe-jafe àdduna muy lépp luy tax nit a baax muy teel a samp ay daara am ay machaakir wut ay bayukaay doon liggéeykat boo xam ne bii naka jekk jàmbaar la di liggéey di fàggulu lew di wut ay daara musta bàyyi boppam ak kenn naka jekk nit la koo xam ne kii ku dul jàll boromam du sëñ Tuubaa moo la ma sa gën ci boppam euh, loolu ma wax ci teel am jom ci fukkeetam ak juróom-ñett rek moom Cheikh Abdoul ci la sañ daaraam ju jëkk muy kàdd ballooji 1932 sañ ci gelogel sañ ci korobaan sañ ci bàddeen diggante 1935 ak 1936 sañ ci baytija 1954 sañ ci mbajaan ak Touba Belal ci ak xilaafatoom fu mu fi mas a sañ itam liggéey rek la fa daa def ak jaamu yàlla ak tërbiyet mbooloo mi ko sëñ Tuubaa booleel doon jàmbaar joo xam ne ji waxam ak jëfam dafa ma sa nuroon ak a jekk bi muy tuuti ci saahir rek la incarné sañ Tuubaa nuru sëñ Tuubaa xeñtu sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa bëgg lu baax teg mbiram ci yoon lool daana wax wax joo xam ne ji itam ñëpp xameloon nañ ko ko daana wax ni man Abdou dey diggante def ak bàyyi koo ca gis du man damay def mbaama bàyyi waaye du defantu du sëndamlu du wajaglu du xiinal du niiral du dënniir lu itam ku euh, xamoon responsabilité la ku ko dangoon a assumé la daana wax ni juróom yii dey kenn ku nekk li baax ci yow ci nit la gën daana wax ni am tudd mat rekk ci baax waaye li mat di baax baax ci mu tudd ci nit la gën Cheikh Abdoul Ahad daana wax ni am ndox tey rekk ci gën waaye li tey di baax baax ci am ndox ci nit la gën Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ni aw yoon jub rekk ci gën te li jub di baax baax ci aw yoon ci nit la gën daana wax ni am soow way rekk ci gën waaye way de ci nit la gën daana wax ni am euh, euh, am tudd mat rekk ci baax waaye li mat di baax baax ci am tudd ci nit la gën Cheikh Abdoul Ahad daana wax ni diggante def ak bàyyi koo ca gis du man Cheikh Abdoul Ahad nur woon na sëñ Touba lu mbir rëy rëy rëy ak lu mbir lëj lëj da koy lijjantee xel mu teey ak xel mu dal doonoon na jëmm joo xam ne ji musta am complexe ci dara musta am itam euh, musta nës nësal musta wax lu mu gëmul itam lépp loo xam ni du lu mën a wéy itam ca saasa la koy daal di didi ci boppam moo tax daana wax ni su ma juumee ñëpp danañ juum daana wax ni di yëg xamal naa sama bopp ni kenn dootuma digal kenn dootuma tere waaye loolu nag du ma tax a ñàkk kilifa ndax bi ma xamee ni amatuma ci sama kanam mag joo xam ni jii wala kilifa goo xam ni jii deeti na ma digal mbaa mu di ma tere te lu ma defati ñu jàpp ni ndigal la lu ma waxati ñu dafa jàpp ni mooy yoon fas naa yéene jël téereb yàlla bii di kitaabullaahi teg ko fi sama kanam lu ma digal ma def ko digal leen ko lu ma tere ma woon ko ginnaaw tere leen ko kooku noonu la mel am na ko ma sa wax ni ko mbàkke man de damaa gént gént ku ma jaaxal biig mu ne ko nu mu demee mu ne ko man de damaa gént rey nit mu ne ko maara di taali aha mu ne ko ah, man kay mbàkke booba laa daal di yeewu mu ne ko boo nelawaatoon tuuti rek da nga daal di gént tàbbi ca kaso ba de boo nelawaatoon tuuti rek da nga daal di tàbbi ca kaso ba ci gént gi kon kooku xam na ni gént ak réalité lu mën a doon nekk ci yoon rek a baax loolu moo tax ku amoon solo la ku xamoon fa muy teg tànkam la ku amoon xëyba la doonoon na jëmm joo xam ne ji nekk na fi ba jóge fii saay saay musu koo ñime ab yéefar musu koo ñime loolu yàlla doon def na ko mu doon ko baayam muy borom xëyba muy jëmm joo xam ne jii te loolu yàlla warlu na ko képp ku gëm yàlla fa isa xaratal xarata alqurana jaalna baynaka wa bayna lazina laa mu noonu yuminuuna bil axirati xijaaban masturan yàlla nee na ku gëm yàlla gëm alxuraan yàlla sun borom dana wuutal kiiraay lu tal sa digganteeg naafiq yi ak ku gëmut yàlla waaye loolu yàlla defaloon na ko ko loo ko gën a mindi ku gën a bëgg te ku gën a sopp danga dem ba dootu mën a teqlikook moom waaye nag kenn du ko ñaaj mukk kenn du ko miin mukk kenn du ko miis mukk ndax kenn ku nekk Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ni yoon wañ la yabe yaa ko xàllal sa bopp ba mu yegg si fi yow ba ku ca jaar yoon nit ku ne ku ñu yab ku ne yoon wañu jaar ba yab la yaa ko xàllal sa bopp daana wax ni mën Abdou ba ñu ma ku ma xeeb waaye nanguwuma ku ma yab ndax nit ki lañ ko yabe ci jëfam lay doon ak waxam nee na ba ma ku ma xeeb de waaye nanguma kenn ku ma yab képp ku mas a séqal mbir lu mu mas a doon ci àdduna jaamloo na la soppi ku nga ab jaamam ndax daal la ca wan ngor goo xam ne gii ak mat goo xam ne gii ak doxalin woo xam ne su fekkee teraanga la su la teralee rek nga daal di sopp ko abidan lahu ak daal di soppi ko ab jar-jaram xam teraanga lool te man ko lool man gan man ay dëkkam bëgg ay bokkam lool nekk na fi euh, ba jóge fi amul lenn lu mas a féetale boppam jagool ko boppam xilaafatoom giitam ñaar fukki at ak benn yi nga xam ne moom la wut sëñ tubaa mus cee xajal doom mus cee xajalub jarbaat musu koo faye bor musu koo jënde aw tagg naka jekk lu mu ciy defit da ci seet ak yàlla ji daana faral di wax ni nangam laa am sama daaw liggéey bi ren nangam la def naa ko ci nangam lu ma jox ma defal la ko ci lu mas musul li fu liggéey bi toll musul ni indi leen lu mas di laaj itam fekk na mu laltaaye ko jëfi boppam ak ñaqu boppam ak akub liggéeyam moo ki daaraam ak ki dongoom lu mas a def rek moo ci jiitu lu mas a santaane moo ci jiitu loolu moo doon aw doxalinam lépp loo xam ne mas na koo dikkal ci teraanga itam bokk na kook bokkam yépp ñu bokkal sëñ Tuubaa rijaalan wa niswaanan moo tax ñoom ñëpp ko bëggoon ñoom ñëpp ko gërëmoon ñoom ñëpp doon ñaan yàlla mu yàgg fi ci jamonoom ci la soppi xarkanub dëkk bii di Touba ba ba wax dëkk bi mu fekki dëkk yu mag yëpp def fi mbooleem loo xam ne lii lu mu yéene woon la te sëñ Touba doon ko ñaan yàlla ci dëkkam bii ci jamonoom ci lo ci la def loolu en réalisation def ko muy lu ñu mën a teg loxo xam ne lii sëñ Tuubaa ñaanoon na ko mi ngi nii loolu mën naa am dinañ ci dinañ ci dikk Cheikh Abdoul Ahad euh, ak xilaafatoom da ngay xool fi mu fekk xilaafatu Cheikhul Xadim bo fekk na magam alhaaji Fadilu Mbakke muy saani xulafa yal na nu yàlla tas ci barkeem te dolli ay leeram yilif Tuubaa ñaar fukki at ak ñett yoo xam ne yàlla defal ko mu fees dell jamono fees dell xol yi fees dell àdduna yàlla sun borom may ko mu maf jamono lépp déggal ko lépp wamatu ànd ak moom moom sëriñ Falilou lu ma sa wax yàlla def ko nawet yi barkeel déew nit ñi itam mu béex béexeex mu xépptal leen ci lu ci waay nekk rek mu mu far la ca ànd ca ak yow waaye di wax ne ah man de maam laa waaye bàyyi ngi ñëw bàyyi bi war a yar war a jubbanti mi ngi ñëw bi ñëpp àndee xam sañ tubaa gëm sëñ tubaa nag mu daal di jël ngay jox ko alaaji fàllu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké booba mu ngi ci juróom fukket ak ñeent ndax boo seetee diggante Serigne Fadilu Mbacké ak Cheikh Abdoul Ahad li fi dox magam yu bari nga xam ni yàlla suñu borom jël na leen ba bi mu fi jógee moom sëñ fàllu booba Cheikh Abdoul Ahad rek moo sës ci te mu mag ko lu bari mage ko lu bari ndax euh, ci zahir soxna Mareem moom ma doon wax mu yaay Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ku ne xam ne ni sëñ Fallou ko mag kon nga doon sa mag joo xam ne ji euh, moo mag sa waajuru jigéen waxuma la yow nga xam ni sa lépp ci seen kanam la moo seex Moustapha waaye bi mu fi jógee boobu moo sës rëkk ci moom doon xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom fukki atam ñett loolu doon tawféexam joo xam ji lu yéeme la ndax juróom fukki at ak ñett yi ñeent yi sëñ Abdou Lahad am lépp ci souffrance la ko am ak ne ci biti xam coono xam xiif xam mar dox fu ne dem fu ne wër réew mi xam nit ñi xam seeni xam lépp ba xëy toog moo tax daana wax ni juróom fukki at ak ñett am naa ko ci biti kon toog gi ma toog ci biir téewul ma xam li ci biti ñaareel ba itam booba beneen courant de révolution am am dugg àdduna daj fépp muy lu ñuy wax multipartisme muy parti politique yi tàmbali di am ay wujj multipartisme daa tàmbalee am ci àdduna bépp nguur yu jëkk yi ñi tam jeex nañu ñi ay guerre civile euh, ay coup d'état militaire ak yu bari am ci yenn réew ba daal multipartisme tàmbalee xew nga xam ne régime yi fi nekkoon tàmbalee soppiku euh, loolu ñu wax liberté de presse et itam tàmbalee xew muy lu neex waay wax lu waaye am xalaat sañ koo wax mbaa nga sañ koo bind am leneen lu xew itam muy démocratie tàmbalee dugg ci réew yi nga xam ni dangay am sañ-sañu mbir mu ne nga di ko defee na nga ko gisee moom sa bopp sañ a soppandiku kemtalaayal na nga ko gisee wala nanga ko sentiré loolu lépp tàmbalee xew loolu lu ci nekk nag doon lu war a mën a gàllankoor lislaam doon lu war a tere li muy bon bon ci nit ci murit la gën a bon ci waxtu woowu ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon xalifatul Xadim yàlla may ko mu doon garde fou ci yooyu yëpp lu bare bare bare bari nguurug nit ku ñuul jeex eh, ñu weex ñu ñu ñuul tàmbalee faru boole seen aada yi nit ku ñuul ak gaaw bew gi ci nit ku ñuul ak gaaw a gi ci ku ñuul ak gàtt suux gi ci nit ku ñuul loolu lépp tàmbalee xew tubaab yu ñuul yi tàmbalee euh, falu ci réew yi loolu du doon jamono Cheikh Abdoul Ahad waaye loolu lépp yàlla may ko mu man koo amortir man koo gérer man koo faj lam njëkk a def ci dëkkam bii di dëkku baayam mooy xam ne sëñ tubaa ñaan na fi ay xéewal ba noppi te loolee sëñ tubaa ñaan dara du ko tee yegg si te lenn rek mën a contrecarrer xéewal leen rek mën a dëpp ay xéewal leen rek mën a te xeewal du am muy ak mooy yàlla ak ñàkk sant ak bew Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fas yéene taxaw temm ci dëkk bii lépp lu neexut yàlla neexut yonent bi neexut sëñ tubaa jóg fi loole lu ne dégg na ko ci jamono yi muy tere fii tux di fi tere naan sàngara booba dëkki arab yi ak dëkki naar yi ma benn dëkk booba loola dafa wullee ñaay lu neex waaye def Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fas yéene dëkk bii kenn du fi jaay sàngara kenn du fi naan sàngara Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fas yéene dëkk bii di Touba kenn dootu fi tux cigarette muy surbu doxaan wa shurbul xamr kenn dootu ko def ci dëkk bii loole lu ne dégg na ko ci waaye tey ñuy dem xam ne doomi sëñ Tuubaa lu mu def na la lu mu wax ni la te lu mu wéet wéet ci dëgg incha allahu moom la yàllay àndal ba yàgg euh, ñu ñu ñu tere ko te bu jëkkoon booy dugg avion dañ lay laaj fa ngay dëggee bii lañ lay laaj da nga tux am doo tux boo nee danaa ñu wutal la classe fumeur nga dend ak ñay tux cigarette fu waa fu neex waay tuxe waaye ñu dem ba occidentaux yi seen bopp tere ko seen place publique yi tere ko seen avion yi tere ko seen bar daje yi ba fu mujj képp kuy mbañ mu rus nga bëgg lu baax nga far ko bàyyi nga xam ne bu jëkkoon complexe képp ci dugal nit ñi ñu dem ba tey jii ku koy def da koy nëbb biir aéroport yeeg fu waay nekk kenn sañatu la tux fu la neex te loolu Cheikh Abdou Lahad Mbacké ko njëkk créé muy une ville sans tabac une vie sans tabac mu tere fi mooy yàlla manifeste goo xam ne gii da nga koy def ay tëgg ak ay fecc ak ay sabar ak loolu lépp mu tere ko ci dëkkam bi loolu yàlla far ko ci. taalibe yi far ko ci ñi bëgg lu baax far ko ci ba dëkk bii képp mooy benn dëkk ci àdduna boo xam ne bii mën ngaa tàmbalee fa nga dëkk di dox ba génn Touba doo gis mukk kenn koy mooy yàlla ci njéeméer di ko def ñëpp di ci teg seen bët waxuma ni koy mooy yàlla du fi dëkk de waxuma ni koy mooy yàlla du fi nekk waaye doo ko def mukk kenn teg ci bëtam kenn du fi sollu bon mu fas yéene génne fi loolu te sëñ Touba moo wax ni ak ni'matu in shukirat qarrat wa in kufirat farrat nee xéewal day boo ko sant boo santee rek mu sax boo weddee rek mu taxu te sant xéewal mooy def lala la boroom xéewal ga digal te bàyyi la boroom téere xéewal ga santaane tere te loolu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko def ci dëkk bi ba Touba gi ngay gis gone gu juddu ba am fanweeri at Moustapha cigarette seex ko ci gémmiñam musta naan sàngara musu koo foye doo fi gis mukkitam dégg nga yenn caaxaan yu sew yi mel ni ay carte ay yooyu yëpp doo ko fi gis loolu moo ko fi def mu jël téereb Serigne Touba bi mat ñu wax Matlabul Fawzayni nga xam ne mooy carnet de booram lépp lu Serigne Touba bëgg ci dëkk bii ci téere boobu la ko ñaan yàlla euh, mu teg ko ci kanam di ko def par tomb par tomb lu ci nekk mu fas yéene bay aw làccam te moom. dafa waxoon ni dinaa sàkku ngërëmal yàlla ci juróomam yi li sëñ Tuubaa boole takkee muy nafsi wa diini summa ahli wal waladu maskani lekk wa di atubat dinaa wut ngërëmal yàlla ci dëkkam bi ak ci doomam yi ak ci taalibeem yi ak ci téereem yi ak ci jumaam ji fas naa ci yéene sàkku ngërëmal yàlla loole lam ci jëkk kile muy dëkk bi mus dëkk bi lim ci jëkk a def mooy def ko muy booba commune rurale la woon waaye muy commune communauté bi gën a rëy ci Sénégal muy communauté rurale boo xam ne bii mi ngi tàmbalee diggante Tindoo dik sëñ Modou Moustapha ak Ndindik Cheikh Mouhamadou Fadal ak Nayde ba Daaru Karim ak sëñ Massamba ba Bakkura ba Keere Ndaw ba Ndaween ba Daaru Rahmaanu Cheikh Abdoulahi ak Touba Fallou Cheikh Ibra Fall ba Sam Fall ba Touba Bogo ba Kayel fenn fu ci nekk mu boole ko Touba mosquée muy benn commune rurale mu def fi juróom-benn fukki soora forage ak benn gas ko fi ànd ko ki nga xam ne booba jamono yooyu moom la yàlla dénk réew mi muy juróom-benn fukki forage ak benn te booba Touba ñàkk na ndox lool mu def ko commune rurale bi ëpp ci Sénégal def fi juróom-benn fukki forage ak benn yoo xam ni fukki yëpp a ngi ci biir Touba ca yooyu jamono mu def fi téeméeri kilomètre ak ñaar fukki d'électricité moom Cheikh Abdou Lahad def fi ab post de santé def fi ab. dispensaire def fi brigade gendarmerie boo xam ne bii euh, brigade spéciale la nga xam ni ñi fi nekk ak ki leen yilif lépp ci ndigalal sëriñ bi ci la ñuy tënku di ci dox di ci wax loolu Cheikh Abdoul Ahad moo ko moo ko def fas yéene dëkk bi am kaaraange nga xam ni képp koo xam ni kii bu ñu la digalee nga def buñ la teree nga bàyyi mu doon sa kilifa koo xam ne kii dañuy weñ sa loxo nag mu boole laak buur ñooña di la digal di la tere boo jàddee ñu yar la loolu Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo ko fi def ba dëkk bi moom fi kàddu ndax benn farixun fi jannati wa farixun fa sa'ir da ngay bokk ci ñi ndigal di defloo wala nga bokk ci buur di defloo rek waaye fas na yéene képp ku fi nekk rek da nga tënku ci ndigal Cheikh Abdou Euh, def ci dëkk bi périphérie muy tëli boo xam ne bii da koo wër ndombo nga xam ni foo bëgg génn ci quartier Touba yi mën ngaa topp périphérie bi ba tolloog foofa nga génn mu daal di soppi xar kanamu dëkk bi ak jumaa ji ak waa Touba wa hajjil xuruji min huyubi jamiha wa anasatu seytaana wa wa ajil wa ajil xuruji min huyubi jamiha wa xudni ila Touba wa mu fas yéene bekkoor jóge Touba mu xiir waa Touba ci liggéey muy liggéey bi nga xam ne fi sama ay risqukum waa na delloo si mbay digle ñuy bay bu liggéey jotee kenn ku nekk mën ngaa dem bay bu noor jotee nga dem fu la neex waaye nañu bay ndax ku bayut lekk mbay digle itam ñu wàññandiku bor yi tey fàggu aw jiw lew di soññe bu baax a baax ci farta yàlla ji nga xam ne mooy asaka daana ci insister bu baax a baax a baax daana wax ni kenn ku ne loo mënta ñàkk dee ko fàggul sa bopp di leen bay li ngeen di dunde te bu ngeen bàyyee bu leen ko yàq te di ko denc tey fàggu aw jiwu ci li ngeen di bay te di ci génne ak yàlla ji ndax xam ne loolu rek moo mën a tax mu barke barkeel waaye Cheikh Abdoul bi mu tàmbalee liggéeyal sëñ Tubaa ci dëkk bi mu tàmbalee ko ci jumaa ji lam njëkk a def mooy miire jumaa ji booba jamono miir ba mu ngi ko cinquante 152 million téeméeri million ak juróom fukk ak ñaar te million yooya booba fukk benn million léegi Euh, fukki millions yi léegi benn million boobu moo ko gën ci barkeel ak loo ci mën a am ak loo ci mën a def ak lum mu mën a jar booba miir bi mu njëkk miire jumaa ji 152 millions la cooy jamono mu daal di ciy teg dindi karo 2-2 yi nekkoon ci jumaa ji karo yu sew yooyu nekkoon ci jumaa ji daal di fiy def marbre loole ñaari téeméeri 280 millions la ñaari téeméeri millions ak juróom fukk juróom-ñetti fukki million loolu moom la jar. fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 1987 le 18 mars 1987 la defoon déclaration boobu ci fas yéene yokkaat jumaa ji jumaa yi Tuubaa ji nga xam ni ba bi ko Cheikh Abdoul Ahad di yokk ku commencé gis da ko yéem di ko yéem ci taar bi di ko yéem ci dayo bi di ko yéem ci lim mën a contenir waaye moom ba mu toogee lim jëkk a def mooy yokk ko ndax xam ni sëñ Tuubaa mbooroom day yokk waaye du wàññiku te ku dolli cere dolli ñeex mu fas yéene yokk jumaa ji wax ni dinaa def ci yokk bi lu toll ni li mën a julli ci biir jumaa ji yokk boobee ak yaatalaat jumaa ji ak defaraat barabu sëriñ Tuubaa bi sëñ Tuubaa nga xam ni bëgg yàlla ak bëgg rasulullahi moo tax loxo mustalaal xaalis mustalaal wurus maddu yeddi li xayrihi indi junuun wa màdd li xayral xalaali wal funuun wax ni man tàllal loxo sama loxo bii ku dul yàlla wala nangu ci lu dul alquran bàkkaar la ci man ak ndof la ci man yeddi li muxnin karimin naafi in samadin laa li darahima taati min sulaytiini waaye ba mu wanee gannaaw adduna la ko yàlla defal adduna muy xarum yaram moom sëñ Tuubaa topp ci moom yàlla tàggatal ko xeeti alal yëpp sëñ Abdou Lahad Mbàkke fa siyéene wane loolu tax mu yaatalaat jumaa ji soppiwaat barabu sëñ Tuubaa bi defar ko loolu tam euh, mi ko kute un milliard cinq cent millions benn milliard ak téeméeri million ca boobee jamono ba mu ne milliard ñu bari dañoo defoo ni kii day gént wala daa xamul li milliard ndax booba jamono bu melu na mu war a mel te booba boroom xaalis yi melaguñu ni léegi ngay na lim ay milliardaire ci sa loxo ci sa baaraami loxo di ko banque ba mu jeex ci yoru murit waaye booba xaalis ñu ko am bariwul waaye dafa wax ni ba mu dajee ci loxoom ba mu mat la wax ni li ma doon laaj mat na sëñ Tuubaa mbiram nii rek la demee yàlla mu sënegi ak bëggam ëllëg dal di wax ni daana xëy ni tey la lan ci weer wi ñu ne ko tey la ñaar fukk juróom-ñaar ci weer wi loolu ci ramadaan la ko sëñ Tuubaa ëpp lu mu ko daan def mu ne bu ma kenn weer wi feeñ ne te joxu leen ma kaamil bi ma leen di binduloo tey ñu bindal ko kaamilum ñetti fan mu yegg ci loxoom mu xool ko mu mel ni mbindum kenn la te mbooloo koy séddoo kenn ku ne xam baat ba nga war a yem ak sa morom war a tàmbalee ñu def ko ci diir bu gàtt jébbal ko kaamil bi loolu Cheikh moom la tàggatal ko jamonoom ndax seex Abdoul Ahad Mbacké mbirum xutbaaniyatum dafa feesoon dafa fees feesoon feng ndax yàlla bu yamalee yabalee ab gawar da koy booleeg ñu mën a santu ay sant yu mën a santu bu yabalee jàmbaar da koy booleeg ay jàmbaar yoo xam ni yàllaa leen di dimbali dooleel leen ngir ñu ànd feeñal liggéeyu kii yàlla teg ci seen kanam loolu sëñ Tuubaa yàlla da ko Cheikh yàlla da ko defal bu baax a baax ndaxte booba buñ naan milliardaire. booba kenn la woon ci Sénégal mbaa ñaar muy alhaji euh, Jili Mbay muy Cheikh Abdou euh, alhaji Babacar Kebe njuga mu nga xam ni murit la di doomi murit ay bokkam di ay doomi soxna muy doomi daara teel liggéey yi yàlla suñu borom tàggatal ko wërsëg woo xam ne wii ku ne xam ne lii kéemaanu Sëñ Tuubaa moo ci feeñ ndax lii fee firndeel ni kéemaan la mooy ni yàlla defoon jëmmam def ko muy ku mokk def ko muy ku nooy ku bëgg lu baax ku nangoo sàkk lu baax ku xër ci bëgg lu baax te te lu mu doon mu nekkoo ñàkk ci yoonu sëñ Tuubaa yi sàkkoo ko ngërëmal sëñ Tuubaa mu alaaj Babacar Kebe moo fi def tali nga xam ne moo jógee ci sow jógee ci jumaa ji ci sow bi ba fa ba bayam ñu ti ko tulle telim ju ko Kebe kenn xamul ba nëgëni sii ba mu duggee ci biir suuf si ba nëgëni sii ñaata ni tey xëy di tudd aw turam dégg nga kookee ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fas yee xamal ko ne ko sa alal laa yor sa alali bàyyi laa yor lépp loo bëgg wax ma ko lu ma man dinaa ko ci def jëmmi dëkk bii rek mu am fi juróom-ñetti kër mu man mandargaal juróom-ñetti kër yi àjjana te sëñ Abdou moo noonu dëkk bii di Touba de Serigne Touba nee na ku fi am benn pujub néeg mooy sa seere yowmal xiyaam alaaji Babacar Gueye am fi juróom-ñetti kër ndax ci loolu la yam déedéet defar fi ab tër yi engagé itam fas yéene décorer barabu sëñ Touba bi décorer ko wurus xaay loo xam ni 3 milliards 700 millions la ñetti milliards ci yooyu jamono ak 700 millions loolu bu doon ci jamono kenn xamul boo ko évaluer tey ñaata la doon ci xaalis mu nangul ko sëñ tubaa defal ko sëñ tubaa terale ko sëñ tubaa sante ko sëñ tubaa moom alaaji Babacar Kebe ànd ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye yàlla boole Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak ay jàmbaar yoo xam nii dañu di ay ndaw tollu seen digg doole jàng ba am xam te ku ne xam na ni jàng tubaab la mu daan def ci nit mooy ñimeloo ko yàlla ñimeloo ko bàkkaar yewuloo ko yewu goo xam ne gi jëmul ci sàkku ngërëm wala sàkk lu baax waaye ay xale yoo xam ni dañoo jàng am jom jàng ba xam la jàng ba noppi wan adduna gannaaw teel dëddu adduna duñ seetaan télévision duñ seetaan làmb duñ seetaan football muy waa Hizbut Tarqiyyah te booba tuddaguñu noonu booba daayira des étudiants mourides la ñu tudd waaye abréviation seen tur rek moo lay xamal ne ñi danañ avancé ndax dem la loolu dem la daayira des étudiants murit boo ko boolee mooy dem bañ tàmbalee dem ba tey taxawuñu kanam rek lañ jëm ñoom ñooñee ñu ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké soppi daaji xaside yi di ko jàng na ko mag ñi daan jànge bu jëkkoon lépp lu sëñ Abdoul Ahad soxla ci xarala wala entrepreneuriat wala habilité ñu man ko te déggook moom def ko muy seen idol def ko muy seen bàyyub xol di nu di ko nuru ak col di ko nuru ay waxin ak jëfin ak i dàll di ko nuru ba seytaane ñemewu leen lu ci nit doon doon gone doon borom pëstéef boo jógee xam nga fa nga jëm xam nga fa ngay jaar xam nga la ngay wuti noonee la leen Cheikh Abdoul Ahad def ànd ak ñoom déggoog ñoom lool sëriñ mbay di borom xam-xam doon jëmm joo xam ne ji yàlla boole ko sëñ Abdoul Ahad Mbacké mu déggook moom téere yi nga xam ne mënees koo ñàkk xam ci ku bëgg a jaamu yàlla mbaa nga xam sa diine wala gan gu bàyyi ci Afrique wala ci Europe fu mën a bàyyi ko te bëgg xam sëñ Touba téere yi nga xam ni mooy xam ne sëñ tubaa ak doctrine am ñu traduire ko en français traduire ko en anglais loola itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla defal ko ko ci jamonoom euh, euh, bi mu jógee ci jumaa ji dafa daal di song bi. bi mu jógee ci jumaa ji daal di song bibliothèque bi ndax loolu dafa bokkoon ci wasiye yi sëñ li mu bëggoon bu fi bàyyi ko ñu defal ko fii fi Tuubaa mooy fu ñuy denc xasaayitam yi fu ñuy denc alquran ndax sëriñ Tuubaa bi mu nekkee njaareem takkaloon nañ ko fa cent 313 cases ñetti téeméeri néegi ñax ak fukk ñett yoo xam ni néeg bu ci nekk ay taabal la fa nekk ay ay lal waaye ay taabal la lal yoo xam ni day am auteuru taabal ba bu gone gu toll ci ku jeqewul nga xam ne bu gisee mbind man koo yàq du du du ko jot lal yooyu Cheikh Aliou la Lambaye la ko sëñ sëñ Tuubaa liggéeyloo woon mu liggéey yu yéeme yéeme yéeme ay taabal ñu tegale ko di ko di ca teg alxuraan ji di ca teg ay mbàjj leen di ca sotti laj koloñ di ca sotti ci di ko suur sëñ Tuubaa moom sàll wetam nga bu ko aajowoo ci suuf wala ci romb jaan lay toog waaye taabal yooyee ak lal yooyu yëpp alquran al karim da ko sëñ tubaa di sëf ba mu diis ak matxu rasulullahi di ko way di wax yaa kitaabal karim yi anta xabibi wa xalili wa xabla kunta tabibi anta faqri wa urwati wa huwa faqri wa urwati wa jalisi bi bi bi ahadisi zil masaya al makiri yaa kitaabal tabibi di ko suur ca sotti cuuraay loolee itam bokkoon na ci li mu mooy ñu defal ko ci dëkkam bi jumaa di Touba defal ko fi itam barab bu ñuy saytoo alxuraan yi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di song bibliothèque bi taax bi mu njëkk wax ni eh, jëmmi édifice bi jëmmi tabax bi booba 200 millions 225 millions la jar wax ni dinaa fi def ni kër xasida alxuraan xasida goo xam ne gi eh, ñaari téeméeri millions ak ñaar fukk juróom lay jar eh, def naa genn wàll gi def naa ci téeméeri million bu samp liggéey yeggee itam lu mu am danaa ko ci def lu ma waay joxit ba defal la ko ci loolu mooy jëmmi taax bi rek euh, bi mu ko tabaxee ba mu mel noonu tam mu daal di fay def mu daal di koy équiper ci lépp loo xam ne lii mooy wàllu matériel sérigraphique ak euh, euh, imprimerie ak reluire ak personnel ba fa nekk mu war lu leen lépp ñu di ko saytu mu defal luy tax ñu mën di sotti xasida yi di ko fa bindee di ko sotti def fa wàllu imprimerie ak wàllu sérigraphie loola bokkul ak 225 millions yi te booba wax naa leen ni booba benn million booba moo gën fukki million léegi waaye Cheikh Abdoul yemul ci loolu mu xeetale xaside yi yi war a ànd yëpp mu boole leen xaside yi yi ak xaside xam ne jaamu yàlla tasawuf yeeg yooyu yëpp bokkut ak diiwaani tawasulaat yi ak munaajaat yi ak bahriyaat yi def ko ay mujalladaat xasida yi nga xam ni ay muqayadaat la alquran la nga xam ni aayay alquran yi lañ ko taalifee mu ber leen xasida yi nga xam ni diwaanu salawaat la nga xam ni day julli ci yonent bi sallallahu alayhi leen xasida yi bahriyaat yi nga xam ni sëñ Tubaa ci tumuranke gi la ko bind ci digéej gi mu ber leen waaye xasida yi salawaat yi diwaanu salawaat nga xam ni julli ci yonent bi rek la bokk te xasida yi nga xam ni dégg nga ay wasaayaa la ak benn benn xasida ay ay ndénkaane la ak i xutba waaye bokkut ak leetar yi nga xam ni sëñ bindoon na ko ci kër yi bind ko kilifa yi lii di ay dénkaane lii di ay tontu lu mel ni fathul naan fi jawaabi arrahman lu mel ni maftaahul xuyub fi jawaabi xilina Omar Diop ak yeneen leetar yi nga xam ne ci kër yi la nekkoon lu ci mën a jot récupéré na ko benn mu jël ko wala mu fab day ba delloo ko borom waaye recopier ko ak yi nga xam ne jotuñu koo mool te moom moo ko mokkal li ko yàlla defaloon ci mën a mokkal kenn xamul mu toll am na ci xasida yoo xam nii bi mu ko soxlaa moom moo ko wax rek moo ko imla ñu bindaat ko muulaat ko kenn xamul li ma mokkal ci xasida mu toll ak way li ñu way sëñ Tuubaa benn muy diwaanul bayaat yi way naar yi mu classé ko sélectionné ko ñu muul ko traduire ko en français li ci des di ay way yoo xam ni ay waa réew mi ay bokki taalibe ay murit saari xam ñoo ko way nga xam ni gàcceel na way yi ci xam-xam ba ca nekk ak araab ya ca nekk ak lusoom ba ci nekk ak bayaan ba ci nekk lu mel ni Cheikh diwaanu sëñ Madiaw Madiaw Paxa lu mel ni Cheikh Ibrahima Diop Masar lu mel ni sëñ euh, euh, Cheikh Abdou Karim Samba Diarra Mbaye li ñu way ci arab wolof lu mel ni sëñ Aboubacar Njaxate euh, dégg nga ku mel ni sëñ Mor Joojo Fall ak ñu ma xamul sax way yoo xam ni yii wayu tumurankele ñi way ko ci arab ñi way ko ci alaf loolu lépp Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dajaleel ko sëñ Tuubaa waaye nag ak mbind alxuraan alxuraan yoo xam ne jii ña leen doon bind ñii sëñ tubaa ñoo jur seen ndey ñii sëñ Tuubaa jur seen baay ñu di ay doomi yoon wi di ay doomi seex mbaa ay doomi kilifa ñii di ay doomi mbokkam ñii di ay doomi jigéenam ñu ci bare bari mu sant leen ñu bindal sëñ Tuubaa ay kaamil muy koo xam ne kii kaamil bii ñu bind borom Tuubaa gii la juddoo fi la ndeyam juddoo fi la baayam juddoo mu yaroo Touba jànge Touba bu mokkal alxuraan bind fi kaamil bi kenn xamu na mu tollu ci ñi sant Jaxate ñi sant Mbàkke ñi sant Jóob ñi sant Jeng ñi sant Njaay seex bu ne kër gu ne waaye la ci ëpp mooy njabootu sëñ Touba gi sëtam yi ku mel ni Seex Mahamadul Habib ku mel ni sëñ Abdul Ahad Mbàkke ku mel Doom ak ñu bare bare ci njabootam kenn xamu nu mu toll gone ku ko ci mas a jox alxuraan tey doom mu teral la wutal la foo dëkk ajal la màkk dencal la soxna nga sapp kër ñëpp daal di sawar ci topp loolu booba loolu rek la kile nga xam ni euh, collecté na fii soixante mille exemplaires juróom-benn fukki junniy kaamil alxuraan yoo xam ni yii kaamil bu ci nekk dañ ko reproduire nangami yoon waaye ka ko bind mi ngi ci Tuubaa gii di doomi taalibe di doomi murit baayam di ñabu bokk ci seexi sëñ tubaay yi wala ci doomi sëñ tubaay yu góor wala yu jigéen loolu lépp Seex Abdul Ahad Mbàkke liggéeyal ko xam-xam liggéeyal ko sëriñ tubaa liggéey ko ci xasaay yi liggéeyal ko alxuraan moo nekk fii ci penkoom bi waaye yàlla fay na ko Seex Abdul Ahad Mbàkke de dafa mas a wax ni sun borom de waxu xan yu ankum jooju mu wax feeñ na ci lépp lu waay di masal defal yàlla toolub yàlla bi ku ci mas ci xëy mbaa ci gont ba am ci jaag boo xam ne bi yaa ko moom wala àndaar joo xam ne yaa ko moom yàlla du def dara lu dellu ca meloom wa ne la sa jëfangoog yaa ko moom wa ànda lay sa insaani lama saa waaye loolee day ba mu koy wax xamul woon ni loolu yàlla dana ko jëflante ak moom ci leemu liggéeyal Serigne tubaa liggéeyal ko alxuraan liggéeyal ko xasaayit liggéeyal ko baayam bu ëllëgee bi fu jógee loolaa koy wër muy Abdul Ahad di kenn képp nekk foofee alxuraan rek wër ko téere xam-xam yi wër ko la mu liggéeyal baayam te yemul ci loolu de. foofee itam sëñ Abdou Lahad Mbacke conservé na fa juróom fukki ton <coughs> ci téere xam-xam yoo xam ni suuf mutasawifoon yu jëkk yi ak euh, sal euh, rijaalu salafi góor ñu ma téere yu baax yoo xam ni téere yu cosaan la nga xam ni bala koo nit a mas am dafa dem Maroc wala mu dem Tunisie wala mu dem ci réew orient yi moyen orient yi Cheikh Abdou Lahad Mbacke fa doomam ñu lëg muy sëñ Mouhamadou Moussa Mbacke mu baax mi ak sëñ Modou Mamoun Niang boole leen ak ay ndaw ñu liggéey ñu jënd fa ay téere xam-xam yoo xam téere yu cher la dikk exposé ko sëñ tubaa fii nga xam ne ni mu fa dencee waxi sëñ tubaa na la fa dencee yeneen téere kutubu suuf yi xam ni boo dikkee tubaa loo bëgg a xam mën nga koo xam te doo génn dëkk bi doo dem fenn loolee Seex Abdul Ahad Mbàkke defal ko sëñ ginnaaw bi la dem ba xam ni ab dëkk kat kuñ koy moomale da nga faa war a am sa këru bopp te sëñ tubaa booba amagu fi kër mu sàkku kër sëñ tubaa bëgg a génn këru boppam def ko kër sëñ Tuubaa wuti fu mu saj ci dëkk bi sëñ mu sa Mbakkeem sëriñ Bassirou Mbakke ni ko du ci dal kër boroom da koy uuf ba noppi kër ga féete ko penku jumaa ja féete ko penku kon kër gii nga xam ne mooy kër seex Cheikh Mouhamadul Bachir ma bokk ak samay rek danga may may ma waxtaan ak samay rek xam naa ni danañ bëgg lu baax ni man danañ yéene lu baax ni man su ma ci waxtaanee ñoom yëkkati kër gi jox la ko nga def ko muy kër Serigne Touba sëñ ab sëñ sëñ Moustapha waxtaan ak rakkam yépp mu jubu leen lool. ñu bit ci lool seen xol sedd ci lool ñu jël kër Cheikh Mouhamadou Bachir gii def ko muy kër Serigne tubaa teg ko ci loxol Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma mu def ko kër Serigne Touba mu liggéeyloo ci jàmbaar yu baax yëpp mu saa xam yi kenn ku ci nekk mu sant la fa ab tabax nga tabax ko fa ñii def fa ay salle de conférence ñii def fa ay apartement mu di ay dal yu baax yu bakkane yu mucc ayib xam naa ca néeg sëñ Mahmoudan Jobbe xam naa ci appartement ab sëñ Cheikh Badar xam naa ca appartement waa Daaru Salaam xam naa ci appartement njabootam gépp ak salle bu mag boobee nga xam ne salle à la boo xam Cheikh Moussa Bassirou ko fa def muy liggéeyu gànjar yu rafet muy loo xam ne lii këri yëpp Sëñ Tuubaa fi jëkk am lu mel noonu nga xam ne da nga am kër goo xam ne gii dana xajoo saw gan bu màggal ma masaana jot ëtti lislaam yi këri diine yi nga xam ni ñoom ñëpp dañuy def ay délégation bàyyi koo fa muñ dikkee dañuy bokk benn ëtt bu leen tiim benn miir bu leen wër ñuy jokkoo di saafonte di waxtaan muy retrouvaille boo xam ne bii loolu lislaam def ciy bëgg xol di ci sedd njabootu diine yépp bokk genn guddi fenn fu ñu fanaan bokk yenn dal ku bëggee gis sa moroom gis sa moroom ci naar yeeg tijaan yéeg xaadir yéeg ñépp bokk benn kër bokk benn ëtt kenn ku nekk ak sab dal ñuy saafonte loolu lu rëy la lu naqari seytaane la lu neex yàlla la neex sëñ tubaa te seex abdul ahad mbakke defal ko sëñ tubaa fii moo na taxul mu yem ci de dafa daal di euh, wut ay tàndarma tàndarma yoo xam ni day neex ay doom lool te gaaw a meññ lool mu ek e, e, importé ko indi ko fii fi Touba wërale ko sëñ Touba ak jumaa ji nga xam ni boo dikkee fii ci jumaa ji nam lay nuroo bara barabu rasulullahi ba sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci ci ci ci saahir ni la koy nuroo itam ci baatin nga gis fi ay tàndarma ñu wër jumaa ji tàndarma yàlla sama borom bàyyi na ko fi ba meññ sax ci kanamam te dañ daan wax ni tàndarma moom kenn du ko jëmbat fekke meññeen ma mag du ko jëmbat fekke meññeen ma waaye loola moom liggéeyul woon bu boppam wala lu muy jariñoo wala loo xam ne fekkee njariñ la xam na ne moom lépp lu mu fi def yàlla rek a tax mu def ko fi ak sëñ Tuubaa bu ko fekkee ak bu ko fekkewul waaye lu ne dugal na ci loxoom ci lu baax génn këru diine mus sa sumb liggéeyub lislaam te Seex Abdul Ahad Mbàkke dugalu ci loxoom lu mu am itam bokk na ko rakkam yépp bokk ak njabootu sëñ Tuubaa gépp ba soxna Moominatu Mbàkke bintu Seexul Xadiim mas na ko wax ni ko yow day Mbàkke sunu baay bi nu bokk muy cheikhul xadim bu dellu suwaatoon jamono ñu ne ma nga ci jumaa jee ah nun jigéen ñi danañ muuru dem siyaare ji ko waaye bu demee duñ ko wax jenn tawat duñ ko wax jenn aajo fu nu bàyyi war a féete rek féete nga nu fa ndax lépp loo xam ne dikkal na la ci yoonu sëñ tubaa wi rek def nga ko ci sëñ tubaa bu dee loo xam ne lii lu war a jariñoo itam bokk nga koog noonu waroo waccunu dëkkoo waccunu lékkoo waccunu loolu moo tax juróom-ñaar fukki at fi sëñ tubaa am la fi am waaye menn mbokkam bëggul woon moon ko ginnaaw yàlla suñ borom dogal itam yoon yépp déggal ko seexam yépp déggal ko doomam yépp déggal ko taalibe yi bëgg ko lool mu sori ci seen xol lool yàlla defal na ko loo xam ne lii ku wax yu daan wàcc ci moom rekk ko mas a am muy lu mu mas a wax rek fanaanul àll lu mu mas a wax rek bind nañ ko mbooleem lu ma mas a wax mel na ni kutubu samaawi yooyu lépp lu mu mas wax discours bu mu mas a wax moo xam moo xam ci màggal la moo xam ci xeet la moo xam korité wala tabaski wala lu mën a doon loolee bind nañ ko saytu nañ ko te buñ tegaatee ay waxam tey mel ni tey jii la ko wax ñi nga xam ne ñooy hukumatu bi muy état bi fonk ko lool déggal ko lool kenn musu cee nas puso te xamu ko mbaa ko doon kilifa gu mat kilifa lu masa sa noppi kenn du ca doon dara yal na nu yàlla taas ci barkeem yal na yàlla taas ci barkeem te bàyyi fi njabootam gi mu fi bàyyi boobu mu fi bàyyi ko itam la fi bàyyi rakkam de Cheikh Abdou Khadir Mbacké mu wutu ko diir bu gàtt. dal di dem fekki baayam ci at yooyee mu am mu juróom-ñaar fukk ak juróom bàyyi fi seex saalihu Mbacke mu toog di sëñ Touba di seex Abdoul Ahad di sëñ saalihu di sëñ Fallou di sëñ Basiiru di sëñ ñëpp di seex yëpp yàlla def ci jëmmam ja mu incarné lislaam bu baax incarné mur yoonu murit bu baax kuy sa kilifa ci àdduna rek boo xoolee sëñ Saaliu Mbàkke mu nur la ko ci cofeel ga ak yërmande ja ak yaatu ga ak yaatal ga ak bëgg lu baax ak xol bu rafet ak xol bu ñeewant dégg nga yoon wi dem ba doomi sëñ Tuubaa yi jeexee ci moom kenn ku nekk jàpp ci la nga war a jàpp ba Seex Abdul Ahad Mbàkke toogee di sëñ Tuubaa sëñ Abdul Xaadir Mbàkke toog lépp lu aju ci diine ji mu jox ko ko ci koor yeeg kor yeeg julli yeeg lépp mu bàyyee ko wàllu diine ji moom di administre sayi sayi sori mel ni Seydina Omar ci lislaam waaye booba sëriñ sori son bu bàkkee nga fële ci këram di ja jàngal sa sëñ Tuubaa di leen yar di leen yee ku mas a jóge ci loxoom sa adduna yéwén sa alaaxira yéwén waaye booba Cheikh Mouhamadou Moutara ngi ci àll bi di toj àll bi di téef eh, tuubal nasaraan yi di tabax kër sëñ Tuubaa yi di yaatal xam-xam ci marku saqaafil islam def boppam citoyen d'honneur ci bépp contrée ak ci bépp dëkk kenn ku ne jàpp ci wet ga mu man yoon wi dox lool neex lool waaye yàlla suñu borom moo namul kenn sax fi bu namoon kenn sax fi kon booba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ni mu ngi fi waaye suñu borom lu fi mës a jëlee rek wóotal dafi lu ñu ko mën a fàttee ñu ñaan seex mu Cheikh Mouhamadul Mountakha mii nga xam te ji mooy ñoom ci cofeel gi ak yitte ji ak xiir gi ak bëgg lu baax yàlla yàggal ko fi ci barke sëriñ tubaa ñu yàgg a topp ci ginnaawam yàgg a sàmmoonteeg ay ndigalam ak i tereem te naal yu rëy yii mu fi naalal borom Touba yàlla yeggale ko ci loxoom te ànd ko moom noo ngi siyaare njabootu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké gépp ni ma ko waxewoon ci njëlbéen li ko tàmbalee ci sëriñ Sidi mu nekk ci bopp njaboot gi ak rakkam yépp nag sëñ seexu naa mu baax mi nga xam ni nii mu mel ci nekku baayam la ko mel di nuyu nag sunu wëllëre muy sëriñ Saalihu Mbàkke doomi sëriñ seexu naa moom sëriñ Saalihu di nuyu bu baax tey siyaare sëriñ Mouhamadou Mbàkke moom Cheikh moom Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ak njabootam gépp ku lim da nga fàtte ndax ñoom ñépp la ñu xam kenn koo ci jàkkaarlool ci doomi Cheikh Abdou Lahad yi rek lu mu doon doon gone ci zahir sam xel dem ci baayam ci bëgg lu baax ak xam nga lu baax ak fonk ngor ak fonk jom ak bëgg lu baax ak bëgg sëñ Tuubaa ñoom ñëpp te lii ma wax yàlla rek laa ci def seere barke Xaadim Rasuul yal na leen yàlla yàggal àdduna ñu yàgg a ko bis bii tey ñaan tawat si nga xam ni moo doxate suñu digganteeg daje nañ ko daan daje yàlla toxale ko fi mu jeex takk bañ delluwaat ci sunu tànt yi ak sunu bâche yi di bég ci bisi sëñ Tuubaa yi te di ci def la man ci lu baax yal na at mi dellu siwaat fekk nu ci kaw suuf te sunu ren ju ne yal na dàq at ma wéy sunu ëllëg ju ne yal na dàq sunu tey yàlla defal nu xusnul xaatimati ci barke borom tubaab barke Seex du Ahad noo ngi delluwaat di siyaare ñëpp di jéggulu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ma di leen xamal nag nag ci melu adduna melu doomu aadama loo xam ne ñun ñëpp nañ maa ci xam ko doomu aadama moom bind bi leen yàlla bind benn la boo ak loo bari boo doon dem arasaka dellu si itam boo doon dem arasaka dellu si te nattabli wuñu ko wóor leen itam fii rek lañ lay nëg ngir xam nañ ne arasaka ndëkk ko fa dangay dellu si te boo dellu si fii de ak koo mën a doon boo defee lu bon ñu wax ko boo fenee ñu wedd ko yal na nu yàlla saxal na ci jub te saxal na ci ak wér te yëg ne ku bëgg a mucc da ngay nekk ci lu jub ku bëgg lu baax da ngay nekk ci lu wér